vocabulaire bi ci biir bu dee diine et cetera et cetera wàññi leen coow yi tuuti waay dimbali leen ñu ngeen wàññi coow bi yéen bi di coow rek moom ñaanal ko bu fekkee ab aawala amagul dina amul bu fekkee ñaareel la na am ñetteel mais ñoom bëgguñ góor ñu takk léegi léegi fan la jigéen ñi ci des jëm xanaa xamuloo ne léegi ñuy takk dañ leen war a subvention waaw ah célibataire yi dañu war di fay ndax dëkkuñu participer wuñu ci développement bi sëñ Ousmane xam na luy développement ah donc ñi nga xam ne takkuñu dañu war di fay léegi boobu loi bu war a yóbbu assemblée nationale la ñu wote slowly. thème bi nga xam ne man la plupart boo ma defal ma waxtaan dama naan la ndax yow am na thème boo man loolu laa lay wax ñaara ma naan wala nga ne ma am na thème bu ma ca laa lay bàyyi nga ne ma xalaatal. wala nga ne ma nañ bokk xalaat tem boo koy xalaat da ngay fi ngay waxe fan la ñi ngay waxat ñan leen contexte bi ngay waxe ban la ndax yooyu soo ko bàyyiwul xel soo waxtaanee thème bi du jàll moo tax man Cheikh El Hadj Malick bind benn téere di ca jàngale nan la ñuy tànne thème mooy xantaratul murid ak lu ñuy jànge mooy wute ku lay jàngal téere boo jeexal laajal ki lay jàngal ban téere ngay wut yan heure ci la di gën a ko mooy fajar mu wax la neexal xel li nga di wax raisin sec bi ngeen di def ci laax nga di ko lekk ak di ko xooj ndox di naan day neexal xel ak grenade Sénégal la yomb ñu tànn nag thème bu am solo muy alwixda wa ahamiyatuha fi islam mooy ñu nekk benn ni mu amee solo nekk benn looluy point bu njëkk bi deuxième point bi mooy yow mi nga xam ne ndaw nga nekk ab tijjaan yow mi nga xam ne ndaw nga nekk ab tijjaan kenn wax tijjaan danga naan tijjaan wala tijjaan ay kenn wax tijjaan tijjaan booy laxal man tijjaan laa kenn du ko wax man tijjaan laa wala man tijjaan laa borom Munyatul Murid na ko def ne jiima tijjaani xafif aw shaddid kon ñaareelu thème bi mooy yow mi nekk ndaw nekk ci tariqa bi nan ngay def ba boole sa sharia muy lislaam ak sa tariqa lépp jaar yoon lenn mënu koo def lu dul mu tege ci xam-xam mais du tege ci kaw folklore parce que ñi ci doon bind ak ñi ñi ko doon joxe loolu taxul woon folklore loolu deuxième point su ko defee nag lu ñu ci temps bi may maa ngi ñaan ñi ngi ñi ma topp ñu di ma contrôler nga xam ne sama temps du ma ko dépasser benn minute mbokk yi foo toog di ma dégg xamal ne l'islam diine la joo xam ne dafay woo ay njabootam ak i doomam yi ñu bennoo tappoo bankal waaw lislaam bu dee dafay woo nit ñi ñu nekk benn kon daf leen di tere ñu tàqali ko bonkal sa baaraam nga yóbbaale léegi mun nga poser question ne lan moo tax lislaam ne nañ bennoo ñu ne la bennoo dafay jox doole mais jullit yi lan moo tax ñu néew doole ci àdduna bi tàqali ko Sénégal li fi nekk ngeen di ko wax pourcentage lan moo tax jullit yi néew doole koy dañu tàqali ko dañu àndul nga wax ko nga bañ ko wax dañu àndul loolu nag dafay tax ñu néew doole te yàlla bi muy wax ci alquran dafa ne dafa ne li tax ma créé leen lenn la ñu ne ko lu mu mu ne ngeen xamante waaw ñun bu ñu xamante te bennoo wu ñu bëggante wu ban njariñ lay am إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا waaye lam ca teg inna akramakum inda allahi atqaakum ba yaakaaru ne yowm alqiyama aw sant la fa nit di amee grade non ragal yàlla mooy grade ba fa ëpp loolu il faut que nit ñi xam ko di ko vérifier di ko nafa ba noppi di ko dund di ko comporté wo mbokk yi doomu aadama naturellement ku social la mooy mënuloo dem yow kenn xanaa xamuloo ne nekk kenn sa lépp di dox domaine privé bu yàlla la loolu moo tax ñu naan qul huwa allahu ahad mais ku dul moom père ngay doon moo tax jigéen ñi ci biir kër yi bala nga koo xam ñu ñu tukki boo ñëwee da ngay jaaxle kudd boo defar sax doo xam fu mu ne loo seet da laaj doo xam fu mu ne te yonent bi alayhi salaatu wa salaam nga xam ne tey ci weeram la nekk ba tax ñu def burdu populaire fii ci Yaraax li taxoon nit ñi xëy ñii dem ci seen bureau ñii ci seen atelier ñii dem ci seen métier ñii commerce ñii tool moom mu topp grand place yaraax yi naan yàlla nee na yonent bi nee na loolu li ko ko mayoon lan la mooy dafa amoon derrière un géant une géante dafa amoon jigéen bu baax du ñoo wax yaay Khadija moo ko taxaw woon ci côté boobu ba mu na def loolu kon l'islam fi mu yegg si tey gàcce ngaa laa la jigéen daf ci jàpp that is not the ngoon pour ñu dem ah suñu yaay xarit ñu ngi nuyu Serigne Modou Diagne Diouf Serigne Modou Diagne ak Serigne Modou Diouf ak Serigne Abdoul Ahad ñu jiite daayira mu naweeru suluur ñu ngi leen di tatagal di leen wàcce seen wàccuwaay mu li ngeen def dafay symboliser dafay tegtale bennoo bennoo jullit yi mën nga aw wala yàllaahu bil Mustafa yàllaahu bil Mustafa sindidi fan laa yemoon suñu yaay Khadija gars yi ñu ngi topp point ah. bu ngeen nekkee en classe loolu la ñuy def pour xam ngaa yi ñu topp wala déet yàlla nee na li ma dénkoon seen maam Ibrahim te yàlla nee na mooy sama xarit ak Moussa ak Aïssa dama ne leen woon bu ngeen taxawalee diine ba noppi bu leen tàqali ko wa maa wasaynaa bihi Ibrahim wa Moussa wa Aïssa an aqimu diina wala tatafarraqu fii maa kon dégg nga ne l'islam day tere tàqali ko kon boo jógee ci burdu populaire bi boo demee nooy def bu dee daawoo ko def bul ko defati bu dee dañ ko daan def bàyyi lu ko mooy sa nelaw yi nga yàq ñëw fii du la amal njëriñ yàlla mi ngi ñaax jullit yi ne leen munu leen maa fay de ñu ne ko lu tax mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ngay ñëw Makka ak Médine da fee fekk ay nit ñaari clan muy al aws wal xasraj Médina lañ ñeenti téeméeri at ñuy xeex yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw juróomi weer la fa am daal leen di boole kon foofu nga may dugale waaxaa dawil hijri والأنصار سيدنا من بعدها أشهر جيما بالحق والحرم كل بوغا ديفو لي كتير البحنا داخنا ني باي من كل وصف حميد هذا فعل Bye. يداكم فلا يمون مدينة المنورة يونس بي عليه الصلاة والسلام فكي أتاك نيت wa ala saakiniha wa fekk fa ñaari clan ñaari jiir ñu xeex ñeenti téeméeri at muy al aws wal xasar yonent bi alayhi salaatu wasalaam am fa juróomi weer dem na leleen ba ñuy toog ci kanam jàkkay yaraax ji wala jumaa ji di waxtaan te bantu kàddu la moom la Maodo ne waaxaa dawil hijri wal ansaar sayyiduna min baadiha ashhurin bilxaqi walxura bennoo boobu ci la jot gi parce que bi mu jógee Makka ñi mu indiwaale quarante cinq personnes la fekk laata muy ñëw Madina yónnee na fa benn ambassadeur bu ñoo wax Mus'ab ibn Umayr mu jël mouvement bu ñoo wax l'islam dugal ko biir Makka Madina ñi jóge Makka di quarante cinq ñi dëkk Madina bi 45 nga boole muy ñaata muy 90 personnes moo nekkoon crème moo nekkoon sookol bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam sukkandiku tabax benn société boo xam ne dafa dajoon kapp adduna bi kon benn loolu am solo dafay tax ñu am doole tàqali ko lu bon la dafay tax ñu néew doole nañ ko bàyyi xel ñun ñëpp. يا يلا يوحي القرآن إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء دائما آية بقول الإنسان قال ورنا من خلق يلا نينا نيغا قبل دينو نيوتي دينا يدفكو أي باك أي باك باك دفكو يكوري نيوم نيوم بولي سين يا تيا واي بوكو يا billahi aleykum gars yi dëkk bi ñaata pàcc ne yaa xam noo koy tudde nag mais jullit yi ñaata pàcc lañ ak looy tudde pàcc yi yaa xam mais am nay loolu moo tax jullit yi néew doole fii ci Sénégal Anas nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na xam lii waral seen tàqalikoo bi ñu mu ne bañante dëkk ak nit ci génn kër mu koy am lu mu la ëppalee rek taar alal xam-xam daraja mbooloo situation rek nga bañ ko mu jiite la ci jumaa ji nga bañ ko mu jiite quartier bi nga bañ ko ngeen dénd kër nga yore ay zeng mu yore ay zeng nga xëy di ko dalee mu bañ nga teg ci kaw mu bañ nga jënd oto mu bañ ba kañ anas nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na lii jur teqali ko bankal sa baaram bokk na ci bañan bu ñaareel bi mooy añaan gars yi luy añaan xéewal gu yàlla jox nit gum mën a doon nag ci yiwa nit nga ne yàlla na yàlla nee na du ma ko dindi ñi añaan rek ñaar lañ ba am na koo xam ne añaanam ci xol lay yem moom dalatul mën a supporter jaral na ko sax boo ñëwee ci jataay bi bu la gisee jóg def mais ki ko ñees mooy ki nga xam ne xéewal gi la yàlla jox mu añaane la ko xéewal gi di yokk mu ne xaaral ma dem wuti maama كوكولا يالا نال ومن شر حاسد اذا حسد يالا نال نغا مسلو تي ايو ادي انان بو ديبي باي فخ بو ديبي باي فخ انان باخو داي ليك ايو ني سفر دي ليك بات الحسود دكو دكو الحسود لا يسود إياكم والحسد إنه يأكل الحسنات كما تأكل النار حطب waaye Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum neen Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum neen nee na yàlla day may sa xarit belo ne ko nga war a mu may ko mobilette ne nga koy iñaane mu may ko oto nee nga koy iñaane mu may ko waaye xoolal ndeysaan ka koy iñaane xoolal waa jaa ngay avancé waaye moom fa mu taxaw du fa jóg mu zam zama amul ab joorit wata iñaan isa xaaradi jaay sunnatale zam zama amamu tammaha hasadan in akhrajuhu li jawrin kana fil haram gis nga telu sam sam biñ ko bënné kan moko bënd ci jamono yi yaronte yalla ismaila alayhi salam ñu dem ba jëmmi jamono amru ni ñu la wax or bu bari dugal ko ci xel ba sakku mas ndax mooy li ngeen di wax ci wolof cere ji bu ma ci lekkul dama ciy këpp suuf xajamal ko cere loole nag ci ñi ko xam daa war a xajam bi ci bopp ci yiy waral wuute wax naa bañante wax naa añaan warante gannaaw xam nga day am ci nit ñi koo xam ne moom munul munul jëflante kenn kenn ku mu ne wala jàpp leen nii ku mu newul ak kenn yaa waaye koo gis mu mënee ñëpp am naa fekk lo bu leen ci sa waral koo gis mu mënee ñëpp wattu ko mënee ñëpp nit war naa am koo xam ne du mënee moom yàlla ñi ko gëmul mëneewul ak ñoom yonent bi alayhi salaatu wa salaam am na ñoo xam ne mëneewul ak ñoom. بروم خم خم يدني وحده كثرة الوفاق نفاق نفاق نيلن كو جيس مو مليك نيب رانا كوت يوم يو بوغو كين لا بلي بار فوكو فك نا كوي كو خم دي كولي بوغ نا داجي ني بي ام برينس دا غا ام لوغم تيغي نور ولا غا ويخ واي ملي نا لول ابدولي بوكو ميت mu ne bu leen wanante gannaaw mooy nit ñi def leen ay mbokk li leen yàlla jox sédd leen ko yéene leen ko ba tax say naa bi tudde la wax daf ne yëngul ci métier mu fanqal la gàcce lu leen yàlla sédde na leen loola doy yëngul ci métier mu fanqal la gàcce lu leen yàlla sédde na leen loola doy waaye koo xam ne lu nit yore añaane nga ko bu ñeenteel bi mooy wala taqaataw bu leen dogoo am na koo xam ne lu tuuti nga koy def mu bala adduna ak àllaxira loolu baaxul sa xarit sa xarit boo demee ba mu réeroog yow yi da nga koy dàqu dañuy wax ne ñii jolof jolof wala mbokkum jolof jolof soo ko jaayee xam-xam mu dem ak àdduna réeram balaa sa xam jolof jolof mbokkum jolof soo ko jaayee sa xam-xam day dem ak réeram balaa sa xam-xam nga jaay ko mu dem ak boppam balaa sa bopp nga ko alal mu dem ak ak ñàkkam balaa sa borom jom noonu lay def borom jom noonu lay def bi ci topp mu ne wa kuunu ibadallahi ixwaana yàlla nee na dañu nekk ay mbokk ci yaraax nan la ñuy bokke ci deret bokk ci diine bokk dëkk ci koñ bokk ci benn tariqa wala ay tariqa bokk benn daayira bokk benn association bokk benn chef de quartier bokk benn nekk ay noon loolu warul mën nekk bokk na ci liy waral ko mooy fanatisme mooy ëppal da ngay yemale sa xalaat mais yow li nga nekk da nga ciy ëppal alquran ne la wala terlu fii diiniku bu leen ëppal ci seen diine wala ci seen i principe bokk na ci yi nga xam ne day jur tàqali ko kenn ku ci nekk la nekk da nga ne moo baax la keneen nekk baaxul. day jur tàqale ko bokk na ca réer am na ñoo xam ne ñoom xamuñ li xew nag yi njëngal lañ nag wu fëx du fëx njëngal moom chef de quartier bi moo bëri ci jamono ji xam nga noo koy firee ci jamono ji ñu nekk mooy sos nga dem bokk ci mais bu ñu sosee dara bala nga ci bokk war na leer ci sa bopp kam nga gis muy bokk ci dara ne jox ma règlement intérieur bi ma liir ko te da koy liir ba xam sa conviction d'accord nag na ak say principe suñu àndul nga ba waaye buy sosee kii daal nga bokk sos bi nga xam na nag waaye da koy defar njàmbaar naa man ci nangam ji laa bokk nangam ji laa bokk bokk ci nangam ji waxtu gars yi di bokk na ci liy jur tàqali koo nag mooy njiit يا خم جيت لي لطول أبنا ولا جيل بوا خم لي جري نال بوا كم بوا تعال بوا كم يكون من تعال بوا كم أنا ديجيم أسمت حكم لا يحارب سلطة فبه تتم سيادته بعفافي أوصيكم بتأدب قر وتعم في البحث كالاشلاف اوصيكم اوصيكم سيدي الشيخ احمد التجانسي المكتوم دوم مام خليفه دوم مام شيخ الحاج مالك رضي الله عنه جيجن مام شيخ الحاج مالك سخنام سندك ديمام رقي جاي ني 1879 نوتي taawam maam Fatma si ñu ngi gane àdduna 1881 noteel ca la Maodo bàyyi lekk yàpp ba 1922 da nga gis nag oustaz buy gàmmu bëgg a jël wax ne nag bi xamul ruur na toolu jaamu loolu amul yow bi nga yoree sa xaalis dem ci taabal ji di jënd yàpp sharia néewu nag wi ful toolu jaamu bu mu dem ndax loolu du sa te am na mooy Cheikh Alhaji Malick dépassé na loolu loolu fanatisme Maodo def ne yàpp du côtelette bu amul bu yow. Souleymane Ayane. yaa yaa bëgg yaa ngi bëgg a génn fi nga nekkoon xam nga damay roof waaye ren maa ngi dellu si jëm maa ngi ñëw parce que boo joolee baat bi noonu jox ko gars yi rek duñ ko jariñ léegi nag mën ngaa dem Serigne Cheikh moo ne maa ngi leen di ku ñu ne ko loolu ñuy dénk lu mu ca teg. bi taa tëddee. mooy ngeen am teggin. ñun nag ñun wolof dafa am lu ñuy tuddee teggin du teggin faiblesse la doyati la hmm. doyati la du teggin sol sa yére yu set rek ñëw ne rëpp ci suuf loolu moom l'islam néew boolewu ko ci teg teggin ci xol la nekkul ci ay kër. lu ci teg. wa tafakkurun. il faut que ñu am benn jeunesse boo xam ne dañuy xalaat ku dul xalaat doo xam loo am ak loo ñàkk il faut que xale xale yi di xalaat mag ñi di xalaat boo ko yàlla buy wax ci alquran sax daf naan la'allakum tatafakkarun lu mu ci teg. bi basikal aslaafi. ñuy def ay recherche ñi ñu jiitu woon di mag ñi di daan def ay recherche. mais xale yi léegi dañu tayal mooy li ñuy tuddee paresse intellectuelle duñu gëstu boo jàngee benn téere doy ne doy na jàng ci benn sëriñ ne doy na jàng ci benn ustaas ne doy na jóg nag topp tànk yi boo mokkalee ñaari béy moom ngay tase tànk yi. mu boo ko yeewalee foofu rek waxtaan s'il vous plaît. mu yóbbaat jëloon islam. wallaay macha allah. laa kubbakuuka wala sullat yadaak fan laa yemoon bokk na ci lii jur tàqalikoo koo gis defe ne borom laxdar yu lan la wax wa ruyatul fadli ala al gayri bokk ci lii jur tàqalikoo xol yu yàqu ndax dafa duy àdduna ba fees bokk ci lii jur tàqalikoo bëri gërëm baaj loolu moo tax bay alaaji Mansour ne waxtu وكذب لواجه مبغض النبي ولا تلن جانبا فيه فيلهيك maam Alaaji Mansour nee na bu waaye yomb yombee ba ñëw am na ñoo xam ne buñ bëggee dépasse wala soxla buñ ñëwee sa kër gis nga gars yi buñ bëggee wax ci la pour lal waxtaan dafa am réer yu sew moom la ñuy teg dañuy jékki-jékki rek ne nga ubbi rek ñu dépasse ah borom loolu mooy xam nga loolu bippe la réew boobu daal waxtaan la réew boobu ñu def la bippee noonu rek nga daal di ubbeeku waa ji départ ci ne mu wax ko ci moom bokk na ci liy waral wuute bu bari bi mooy borom xam-xam bu kàcco daa bari ci réew mi waaye bokk na ci li mooy kuy jaamu yàlla ba noppi xamul dafa réer bokk na ca nag ku yore ñaari xar kanam bu ñëwee ci yow mii li lay wax bu ñëwee ci imaam wax leen muy dur wajhaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kooku bu ñëwee yowmal qiyaam situation bu bon la yore defe naa tomb boobu mën naa ci arrêté foofu sama deuxième euh, euh, tomb wax ko wax leen ko lu ma dese ci temps 15 minutes moo teel ma ko de 15 minutes yi bu mu ko ëpp de sëñ Baye bu ma ko dépassé de bu mu xeebtal benn minute tomb ñaareel bi mooy yow mi nga xam ne ndawal tijaan nga nga tënk ko résumé ko sommairement joxe ni ko mooy yow mi nga xam ne ndawal tijaan nga bëgg a boole sa tariqa ak sa charia mu jaar lenn rek ko mën a def di séddale yow ma leen yow ma leen borom borom lu rek yooyu moom mën ngeen séddale sans day perte loolu xam-xam rek moo ko mën a def sëñ Habib te wut xam-xam ba am ca lu doy ngay jaamu yàlla bu baax tey musul tey te julli wut xam-xam ba am ca doy di jaamu yàlla bu baax mais soo bëggee nekk tijjaan te amuloo xam-xam ànduloo ko am xam-xam te moo bari ci réew benn ngoog bu ñaareel bi mun a joxal xaqiiqatu xaqam sharia bee ko tax di wax tariqan joxal xaqiiqatu xaqam mooy xaqiqa te tariqaan ci biir xoolal sharia mooy maat sharia mooy sharia mooy mooy maat xam nga kuy yaay tasawuf xam nga kuy sët tariqa Sëriñ Haadi nee na tariqa jox ko xàqam noo ko koy joxe benn day tege ci xam-xam hmm. ngay wér di suba ngoon wasi ba subaa ngoon wala benn yoon daalee leen quatre heures ñi wax naan càll la Cheikhul Hadji Malick force su nga wasifa ñaari yoon wéru daf leen ni waay xam-xam wéru xanaa kon ñi jiitu woon Maodo doon wasifa benn yoon seen tariqa wéru c'est que Cheikh daawul wér di ñaari yoon xadara benn yoon ci àjjuma dem ca mbooloo ba soo amul su la jegee su dul loolu nga def ko yow kenn mais tarixa bi lan la wax dafa wax ne bokk na ci surutul kamaal yi tax mu mat julli ca waxtu defe ko ca mbooloo ma soomul ngan di ànd ak laab lépp lu sharia santaane nga tënku ca lu mu tere nga tënku moo tax mu ne joxal shariatu xaqiqatu xaqam lu mu ci teg joxoon sori ado sartam yëguloo ne sharia moo attan tariqa bi waaye tariqa bi attanul sharia bi tariqa bi mi ngi bootu ci sharia bi moo ko boot mais tariqa bi mënut a boot sharia bi eh. sharia bi moo mën a boot tariqa bi loolu il faut nga yóbbaale lu mu wax mooy li ñu xam ñun daayu يا جودي يا نبي الخطيب